gërëm aussi suñu mbokk Sané di IF bu Fatick ci dalal bi di ko wax aussi bu dal jàmm ci suufu siin ko xam joolaa xam séeréer xam ne seen ànd yàgg na dans l'histoire di ko ñaanal ndam ci mission bi ñu ko dënk di ko feddali aussi suñu coloré bu baax pour jàppale ko ngir mu mun a weel mission boobu yàlla may ko ci ndam muy njariñu Sénégal di njariñu waa Fatick surtout li ñu fii ni tey mooy benn jàppale boo xam ne dañ ko indiwaa waa jàppale googu mu ngi toll ci maanaam fukki junni ak ñaari junni masque ak euh, junni ak ñaari téeméeru euh, butéelu gel ak benn imprimante boo xam ne école Moustapha Baydima moo ko moom ndax ñoom ñoo ko sàkk woon ci ñun buñ ko doon xayma ci waru koppar mu ngi toll ci juróomi million ak genn wàll juróomi wala genn parce que masque bu nekk euh, mun na jaar euh, maanaam 300 euh, francs bouteille gel aussi bu ci nekk dina jaar 1500 gën ngaa néew imprimante yi mu jàll au moins 300 000 francs CFA donc muñ ko boolee lépp mu ngi toll ci juróomi million ak genn wàll boo xam ne ñun ñoo ko jël indi ko Fatick ngir jàppale ko askanu Fatick jaarale ko ci ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu yilif njàngale mi muy IA bi yëgal nañ ko gouverneur yëgal IF bi yëgal nañ ko gouverneur yëgal nañ ko préfet waaye mas mi nu mu demee moo tax mu ñu fi teew ndax dajaloo yi ak xumbaay yi dañu ko tere li tax ñu def jëf jooju nag li ko waral dafa bari mooy Fatick la ñu dëkk fii la ñu juddoo fii lañu ñu màggee suuf si moo ñu meññ lépp lu ñu am Fatick moo ñu ko jox donc lépp lu ñu am pour teral Fatick du ñu ko man sax mais ngir ñu barkelu ci dinañu ko def loolu bokk nañ ci li jiitu ci li ko waral leneen li dafa nekkoon ab ñàkk gu fi nekk ñu dégg ko ci kàddu IEF bi sàng bi mu wax dafa ne dafa tiitoon jaaxle jommi loolu sax bi mu gisee ñàkk gi fi nekk mais surtout ñàkk ci wàllu masque beeg wàllu gel yi ci xale yi muy ndongo yi waaye itam ci ñuy jàngale bi ñu ko ko joxee dafa bëgg lool donc loolu mooy ñaareelu raison bi tax ñu def ko leneen li encore une fois mooy euh, intérêt ak importance bu ñu jox njàngale muy lu am solo ndax ñu ñuy taxaw fii di wax yëpp lu ñuy wax ñàngale moo ñu ko jox président mi ñu àndal di ko jàppale ngir réew mi naat réew mi jëm kanam aussi ci gis-gis bu mu am ngir Sénégal naat fii léegi 2035 daf ci am ñetti pàcc yoo xam ne ñaareel bi ci wàllu askan wi am wér la waaye askan wi am xam-xam bu mat sëkk bu mucc ayib la moom itam njiitu réew mi nga xam moom la ñuy jàppale moo ñu fi teg jox ñu ay teraanga moom moo tàllal ñëpp loxo gannaaw Euh, góorgóorlu nga xam ne état bi nga koy góorgóorlu waa Sénégal yi war ci jàpp moom moo tax euh, appel à la solidarité boobu moom mooy ñeenteelu raison bi nga xam ne moom moo tax ñu indi fii lii te di ko xeeb encore une fois di féddali suñu coloré IF bi di ko gërëm di ko sant di féddali suñu coloré également waa Fatick encore une fois di leen ñaan nag ku ci nekk li nga war a def nga def ko état bu ngi def liggéeyam mu ngi leen di dimbale jàppale ménage yi jàppale entreprise yi ci force Covid 19 bi toll ci mille. Euh, Euh, milliards li état man mu ngi koy def li force de défense et de sécurité bu aussi ànd ceeg ASP yi ñu ngi koy def mais nit ñi aussi nañu xam ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam ku ci nekk na nga wàccoog li yoon digle ku ci nekk na nga wàccoog dogal yi ministère de la santé digle ku ci nekk na nga respecté geste barrière yi loolu kese moo ñu mun a dimbale ndax feebar fi mu toll tey jéggi na dayo Euh, faagaagal na koom-koomu àddina bi sëpp faagaagal na koom-koomu réew yu am doole yi astamaak réew yu ñàkk doole yi ñun comme ñun te ba fii ah yorin gi nga xam ne njiitu réew mi yor na ko maanaam euh, feebar bi tax na ñu jiitu ci Afrique tax na ñu yor ñaareelu euh, placement aussi ci àddina bi gannaaw Nouvelle-Zélande donc loolu warta tax ñu naagu dafa war a gën a tax ñu farlu dafa war a gën a tax ñu am jom dafa war a gën a tax ñu góorgóorlu liggéey bi ñu doon def ñu gën ko yokk gën ko làbbali ngir feebar bi ñu mun ko faagaagal koom-koom gi jëm kanam wérgu yaram gi jëm kanam ñu aar suñu bopp aar ñeneen ñi aar mag ñi surtout. message bi mooy loolu ñuy def du yoon loolu ñuy def tegul fenn loolu ñuy def teguñ ko fenn ñuy gën a ñaax force de défense et de sécurité ñu gën a farlu ci liggéey bi di wax population yi aussi que dogal yi état bi jël pour ñoom la pour seen njariñ la pour aar leen kese la ñu war a góorgóorlu ñoom wàccoo. ak euh, euh, geste barrière yi ñu xalaat ñeneen ñi aussi parce que feebar bu feebar bu bu bu sérieuse la au fait ko kenn laam kenn laam laa ko fi mu toll yi donc état bi nag continue li mu doon def waaye nit ñi aussi nañu yeewu xam ne feebar bu doy waar la feebar bu kenn abagul garabam la te li état bi jël ci ay dogal aussi pour ñoom la ñu góor góor lu wàccoo ak geste barrière yi kàddu yooyu laa bëggoon yëkkati encore une fois. vraiment acte bu DG posé tey. di ci kontaan bég parce que lii c'est venu au bon moment comme ni ñu koy faral di wax jaaxle woon nañu naam état bi mu ngi def lu mu mën euh, ministère bi mu ngi def lu mu mën collectivité territoriale yi ñu ngi def lu ñu mën mais xam ngeen ñun ay dëkk yu néew doole lañu moyen mosul doy moyen yi musuñu doy donc c'est pourquoi l'acte là maa ngi koy remercier au nom des autorités académiques à commencer par le ministre de l'éducation nationale mais également au nom de l'inspecteur d'académie de Fatick maa ngi ko ciy remercier bu baax préfet tamit démb bu ma koy rencontrer dama ne boo ñëwee nga gërëmal ma ko santal ma ko waaw bëggoon na fi teew mais malheureusement euh, agenda am permettre ko mu ñëw donc nee na ma bu ma ñëwee ma santale bu baax ci turam donc encore une fois li ngeen posé nii defalu leen ko IEF bi defalu leen ko kenn seen bokk ngeen ko defal wax nga ko sànq fii ngeen juddoo jàng fii mage fii li ngeen di def day impacter jusqu'au vieillard bu nekk ci kër gi parce que ministre bi wax nañu ko le ministre de l'éducation bañ leen ñu naan pandémie bi ci école yi la jaar pour dugg ci dëkk bi donc ci loolu nañu nekk bés bu nekk c'est vrai que euh, liggéey liggéey quotidien la bu ñu war a def bés bu nekk nest pas di nga jaar fii nga gis ne école bi yëpp euh, porté nañu seen masque nga dem feneen également nga gis ne foofu affaire bi xaw na sooxee tuuti mais petit à petit ñu ngi corriger mais également ñu ngi sensibiliser nit ñi sensibiliser parent yi sensibiliser CGE yi APE yi ñëpp association de mère d'élèves yi vraiment maa ngi profité di leen sant bu baax a baax parce que ñoom tamit daaw dañu mobiliser woon un million huit cent pour accompagner école yi donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di am yaakaar ne dina am ñeneen ñuy ñëwaat ñeneen ñuy ñëwaat topp tànk tànk DG bi